إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم القائل في محكم تنزيله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala te di ko dimbali ko di ko ñaanit mu jéggal na suñuy bàkkaar di ko ñaan moom subhaanahu wa taala mu teg ñi ci yoonu njub ci alhidaaya di ko ñaan moom subhaanahu wa taala mu saxal ñu ci tafaat ñu ci ñuy seede ne amul kenn kun war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhaanahu wa taala te war ñu ko bokkaale ak kenn di seedal ni suñu sangu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam booba borom bi subhaanahu wa taala yi doon suufam si ñuy dénk suñu bopp di leen dénk mbokk yi ragal yàlla subhaanahu wa taala di leen dénkit kàddu yi borom bi subhaanahu wa taala di wax ci alquran di wax ni wattaqu yawman turjauna fihi ila allah nañuy bàyyi xel bis bi nga xamante ni ñun ñëpp ci la ñu waññeeku dellu suñu borom subhanahu wa taala summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuzlamun te kenn ku ci nekk la nga jëfoon boo ñëwee danga ko fekk ci moom ndax yàlla subhanahu wa taala nee na maa yulfatu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kenn ku nekk ci yéen gàll naa la ay malaaka yoo xamante ni lépp lu ngeen jëf wala lépp lu ngeen koy lu ngeen di wax ñu ngi koy bind te wa ma rabbuka bi dallamin lil abid yàlla mu ne du ma tooñ kenn ci lépp lu mu war a jëf bu ñëwee fekk ko fa doo fekk mukk sa téere jëf nga ñàkk faa jëf dara fekk ko fa wala nga jëf dara ñëw doo ko fa fekk ñuy seede ni buur boobu de amul kenn ku nu war jaamu ku dul moom te war ñu ko bokkaale ak kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam de jaamal na ndawam la mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi ko fas yéene amal ci xew-xew bi nekk suñu kanam muy al uduxiya muy tabaski borom bi subhanahu wa taala nettali ñu nag xew-xew bi na mi amee woon ak ca ka mu amee woon ka mu amee woon di kenn ci jaamam di yonentam di ibrahima alayhi salaam mu seqoon ko ak njabootam gu làbb ga borom subhaanahu wa taala di wax ni wattaxada allahu ibrahima xalila yàlla de moo tànn ibrahim moomu def mu nekk xaritam mbokk yi kon jar naa laaj ni ibrahim ana lan la jëf ba yàlla tànn ko mu doon xaritam moom ibrahima alayhi salaam yàlla da koo tegoon ay natt muy natt yoo xamee ni yàlla mu ni amul kenn koo xamante ni nee nga gëm nga yàlla te duma la teg ay natt kon natt bi ko yàlla tegoon nattuy pas-pas la ndax ibrahim natt bi ko yàlla njëkk a teg mooy ni moom da dafa wax ni yàlla war ñu ko bokkale ak kenn ci tawxiid kon la ko yàlla nattoo natt bi mooy dafa défier ummab lëmm xeetub lëmm ci ne waruñoo jaamu kenn ku dul yàlla Ibrahim traversé moom ak buur bu kaccoor bu ñuy wax Namruud fitna boo xamante ni bëggoon na ko amal ci moom waaye yàlla nee na fa jaalnaahumul asfaliin ma jël seen pexe yooyu ñu pexe woon jëmale ko ci Ibrahim ci tawxid gi mu leen di woo ma nee na seen mbir féetale ko suuf muy première natt boo xamante ni Ibrahim yàlla natt na ko ci tawxiid wante yem natt yi yemul foofu mbokk yi Ibrahim alayhi salaam yàlla dafa dogaloon ba bi muy nekk mag amul woon njaboot njaboot dafa bokk li ci jaam bi war a ñaan yàlla mu may ko ko waaye am teen njaboot moo tax Ibrahim ni rabbi habli min as-salihin yow yàlla ñaan naa la njaboot boo xamante ni ñoom de dinañ ma jariñ ci sumay dund waaye tamit dinañ ma jariñ su ma faatoo njar njaboot gi la nar a jariñ mbokk yi ci boo faatoo mooy njaboot nga xamante ne da nga leen teg fi yàlla wax ngeen teg leen fa ñooñu ëllëg dañuy bokk ci ñu alayhi salatu salaam wax ni bokk na ci ida qaata ibnu ida maata ibnu aadama inqata amalahu illa min salaas doomu aadama su faatoo ay mbiram yëpp dagg na ba mu def ñett mu bokk ci waladun saalih yadu lahum moo tax ibrahim bi mu ne rabbi habli min alsalihin yàlla neen fa basharnaahu bi gulaamin halim xaaruma ñaan gi di tardé ndax sama jaam la boo xam ne damaa juboo ak moom ca saasa laa dogal ni moom dafa war am njaboot bu ñuy wax ismail mbokk yi foofu la beneen natt bi ñëwaat ci ibrahim alayhi salaam ci ni yàlla day natt pas-pas bi nga xamante ne moom la défié woon ummab lëmm ba yàlla génnee ko ca ca pexe ñu ko bëggoon fexeel noonu la ko yàlla nattuwaat ni ko jëlal sa njaboot gi nga yóbbu leen ci àll ba muy fay di makkatal mukarram tey fii waadin gayri zi zar'in yóbbul sa njaboot gi ci xurwee nga xamee ni amul ndox amul lekk amul dara nga bàyyi leen fa muy ñaareelu natt ibrahim sikki sàkkwul ci ndigal borom bi subhanahu wa taala noonu la jëlee njaboot gi yóbbu leen ci foofu nga xamante ne fa la yàlla wax ne nañ leen fa teg ginnaaw gi mu bëgg a won ginnaaw soxna si ginnaaw bi mu ko déposé ba pare waaye mu nekk soxna soo xamante ni it soxna su yàlla tànn la tànnal ko jaama bii di Ibrahim muy soxna su nangu Ibrahim ni ko tegg mook Ismail bëgg ko woon ginnaaw mook kii Haajara neewul ci saasi Ibrahim li ngay def nii lan la waaye dakaa bàyyi ba mu woon ko ginnaaw sans la présence de l'enfant muy doom ji donte ab liir da toog fa mu toog waaye da koo soril fekk ko fa mu ko fekk ndax coow li way jur doom amu ca lam ci war a fekk wala lu mu ci war a xam mu ne ko yow Ibrahim ndax lii nga naa def nii moom lu mu tudd Ibrahim wuywu ko ndax ku ne xam na sentiment wu njaboot ci mu sax ci xol moo tax newul gees xool ko daa doxaat ba xaw ko sori tuuti mu ne ko yow Ibrahim ndax dang ñu fi nar a bàyyi nii ba tey Ibrahim tontu ko ca ñetteel ba mu ne ko allahu amaraka bi hada ndax yàlla moo la ko digal ci la Ibrahim soog ni gees nag ndax tudd nañ xaritam Ibra mooy allah subhanahu wa taala mu ne ko naam yàlla moo ko digal mu ne ko demal yàlla duñu neenal mu dem ba ko fa moom ak doomam ju ndaw jooju mbokk yi xéewal bu njëkk di njëkk a wàcc ci ñoom ci njaboot gi mooy Ibrahim bi mu wàññi ko ma nga fekk fa Ismaël toogoon di jooy ndox bënn fa muy ndox mi ñuy wax ndoxu zam-zam soxna si na ndox mi zam zam mooy dalal dalal te ndox mbokk yi képp koo wax ci ab foo xamee ni ay xeer dong fa nekk dina am ay picc yoo xamee ni fu ndox nekk rek lañu ne nakate picc yooyu ñoo war a xamal alerte gox yu sori yi ni fee am na ñu fa ne subhanallah mbokk yi muy première alerte nit ñi commencé di daw di ñëw di xool si lu am fii lu ne fii picc yi ne ci lañ ko fekk Ibrahim Ismaïl ak yaay ji mu toog ñu commencé def ak ñoom échange échange lan ñun de ndox lañ am ndax Ibrahima bàyyiwuloon woon kenn ku dul yàlla ku ñëw indi ñam ñu jox la ndox ku indi ndam ñam ñu jox la ndox ba mujj gi la fa wër lépp di ay dëkkandoo kon de wéetatul mbokk yi pour ndoomu aadama di ragal fu ne rek na doon fu yàlla nekkul te yàlla ngi fépp mbokk yi loolu mooy xéewal bu njëkk goo xamante ni Ibrahim nangu bi mu nanguwul boroomam soxnam si nangu bi mu nangul borom këram mooy xéewal bu njëkk gi la yàlla defal aqul ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي جينا بن سنتاتي يالله سبحانه وتعالى بجل بسلمان سيرانتي صلى الله عليه وسلم نيو نيوات باتاي دي waxti qissay uduxiya mooy istuwaaru tabaski yàlla ni falamma balaga maahu saaya qaala ya bunaya inni ara fi lmanaami anni azbaxuka fanzur maada tara قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين mbokk yi borom soo tàlla nee na doom ni mu saxee ci xol moo tax may nattuwaat Ibrahim ñetteelu nattoom di xool ndax mbëggeelu njaboot ji rawatina doom ji moom la jiital ci xolam ku mbëggeel gi moo war a bëgg yàlla mu ne ma bàyyi nag Ismaayil ba mu tolloog moom ba nga xamee ni li olof naan ku jur doom deewoo boo xoolee Ismaayil mu mel ni Ibrahim ngay gis ci nuroo yàlla ni ko rendi ko nag te bu ko santaane yaa koy rendi Ibrahim jël wax ji woo doom ji ni ko yaa abati yaa bunayya yow doom sama ngay dégg sax appellation bi appellation bi mu koy woowee nga xam ne cofeel sax mu ngi ci moom yaa bunayya la ko Ibrahim woowee yow doom booy yàlla mu ne naa la rendi moom it bi muy tontu baay bi yow baay booy la ko wax ifal maa tukmar defal li la sa boroom sant sa tajidu nii insha allah min assabirin waxu ko sa tajidu nii min assabirin waaye insha allah la ci dugal ndax assabru muñ yàlla moo lay dëgëral mu am sadaat sax fa ba tax li nga bëgg nga mun koo am moo tax mu ni ko insha allahu min assabirin yàlla mu ni fa lamma aslama ba ñu dëppoowee ci ndigal gi ma sant ibrahim mu def ko ñoom ñaar Ismaïl li mu njëkk a wax bàyyi mooy yow bàyyi boo may rendi takkal say bët bul ma xool an nazara mu ne ko sama yëre yi nanga ko summi ndax deret gi bañ a tis ci sama yëre yi muy jeexintal sama way jógu jigéen Ibrahim jël paaka bi tër ko di dawal dawal dawal dawal paaka bi mënul rendi kii di Ismaayil mbokk yi sir bi yàlla joxoon safara bi nga xamante ni moom lañ naroon dugal Ibrahim te yàlla defoon première intervention ci moom ne ko yaa naar kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim yow safara doonal lu sedd sedd buy jur jàmm nag ci Ibrahim sir boobu la yàlla joxaat paaka bi ba bi mu tëralee Ismaayil mënu ko ren te mu ngi dawal yàlla mu ni ginnaaw bi nga xamante ni aslama rek ci laa leen remplacer wa fadaynaahu bi dibhin adim si la ko remplacé am xarum tabaski paaka bi bañoon na rendi Ismaïl paaka boobu moo rendi xarum yàlla mu ni inna kadalika najzil muhsinin jan fay leen yàlla fay tey jii mbokk yi taabatal asharaf gee nga xamee ni moom xale bu lay ñaanal sax bokk na ci ñaan yi nga xamante ni moom la xale yàgg a tàmm di ñaanal nit mooy yàlla nga dem màkk moom ibrahima ak ismail ñoo ko tabax wa iz yarfaw ibrahima al maqaid ibrahima moom la yàlla sant mu yëkkatiwaat fondation kaaba gi ginnaaw bi ko malaaka yi defoon fondation loolu yàlla defal na leen boobu xéewal muy xéewal bu njëkk beneen xéewal gi mooy boo demee ba tey da ngay fekk maqaamu ibrahim fa ibrahim tabax taxawoon di tabax kaaba bi ak hijra ismail muy demi cercle bi nga xamante ni kuñ fa tijjil nga julli fa mu ngi mel yaa ngi julli ci biir kaaba bi xéewal boobu yàlla defal na leen ko képp kuy def aj wala umra doo ko def fonk bi mat lu dul da ngaa daw safa ak marwa kan moo dawoon safa ak marwa hajira moo ko dawoon diggante ñaari montagne ngir xool fu mu fu mu mën a woo ko wettali ak fu mu mën a jëlee ñam woo xamante ne moom lañ nar a dundee mbokk yi yàlla mi doon maye loolu ba tey mi ngi koy maye wante foofu léeg-léeg yàlla dalay tegi natt fi jamono tollu tey mbokk yi ci metti ci jafe xat lool képp ku ci sàlloo wala muñ di nga def loo mënul def képp ku ci yàlla defalul xéewal soxna su mën a muñ jamono yooyu egsi ci jamono ji borom kër yaa ngi dund fitna ci lan foo toll ci xotti xale yi fitna xar daal moom bu amulee wala xattum kër gi day xar mbokk yi yàlla nee na maa jaalallahu fi diin min xaraj def ma leen lu jafe ci ju ci ci jaamu ñu ko war a jaamoo lépp lu tudd jaamu yàlla diisul képp ku ko diisal nag mooy mujj diis sa kaw mbokk yi bi idnillahi taala bu ñëwaatee suñu xutba yii di ñëw ñu wax al uduxiya ana nan la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee waa bi kulli xulaasa lii mooy histoire tabaski rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي اللهم اهدنا الى صراطك السوي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله